kon bu fekkente ne loolu am na te yow xam nga ne juróom-benni weer yooyu desewu la loo yilifee réew mi am na loo xam ne ci biir constitution bi yaa ngi ko ne jàkk mooy décision wala dogal yi nga xam ne force restera force restera Parlons des lois tout simplement. Je convoque donc le règlement intérieur de l'Assemblée nationale en son article 46. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, vous avez convoqué la conférence des présidents le dimanche 4 février à 11h. Convocation de la commission à quinze h le même jour. Convocation de la plénière le lundi 5 février à 11h. Dites-moi où sont les 24 heures ici. Ça veut dire que vous n'avez pas respecté l'article 46 de, du Ça, c'est un. Je parle donc des incidences financières. Toutes les défenses effectuées avant, pendant et après le scrutin. Où est cet argent Et pourtant, en ce moment-là, il y a des gens qui meurent parce que faute de médicaments. À ce moment-là, il y a des, des, gens qui meurent parce que faute d'hôpital. À ce moment-là, il y a des gens qui meurent parce que faute de conditions de vie qui sont un tout peu acceptables. Et à ce moment-là, nous sommes là à dire que oui, il a pas de milliards, il a pas d'incidence financière. Vous osez le dire Allez-y à la DGE. Combien de milliards ont été dépensés pour des séminaires de formation Nos parents journalistes sont là. On les a formés. La Direction générale de la communication, donc de la DGE. Et vous nous dites qu'il n'y a pas donc d'incidence financière. Je reviens encore une fois de plus. Pourquoi Ici, en tant qu'étudiant, on a lutté, on a tout fait pour barrer le quart bloquant en 2011. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit C'est même le même bourreau qui revient encore. Et finalement, on a le même bourreau. Je reviens. Vous nous demandez tout simplement une dérogation. Vous l'avez dit, le mot dérogation, qui vient du verbe déroger, qui signifie tout simplement action de déroger s'écarter de quelque manière que ce soit de ce qui est par une loi ay ah, yéen député yenee ne yéen da ngeen di écarté wu ci loi yéen maanaam loi yéenay voté loi ngeen ne léegi loi intéressé tu leen lan moo leen intéressé mooy bëgg-bëgg benn doomu aadama lan moo leen intéressé mooy askan bi li mu bëgg ngeen ne non loolu suñu yoon nekku ci li ñu bëgg mooy doomu aadama bi li mu ñu wax loolu la def ki nga xam ne moom moo taxawoon fii waxoon ne je vais réduire à sa plus simple expression mandat de sept ans ko cinq ki nga xam ne moo taxawoon fii wax ne les bu sont des personnes ordinaires comme vous et moi ki nga xam ne moo taxawoon fii ne leen tolérance zéro pour les chauffeurs ainsi de suite ainsi de suite et aujourd'hui ngeen ne kooku moom moo tax ngeen di ngeen di wax man dama jàpp ne da ngeen a war a mun a xoolaat seen bopp xam nga tax ngeen war a mun a xoolaat seen bopp il faut aller lire l'œuvre de Cheikh Aliou ndaw mbaam dictateur tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les pour le dire arrivent et la conception de votre loi n'est pas bonne ndax su baaxoon du ngeen dagg internet couper signalu Walfadjri jël policier yeeg mu teg fii comme nag conception loi rek moo leen jaral loolu yëpp kon xanaa loi bi su ñëwee daf ñuy rendi ñu dee conception loi rek conception loi ngeen couper internet couper signal Walfadjri couper télé couper lépp jël police gendarmerie yëpp teg conception kon bu loi bi ñëwee fu ngeen jëm xanaa kon daf ñuy ñëw rek rendi ñu dee xoolal leen seen bopp mais je viens de comprendre cette œuvre lorsqu'il disait que le peuple d'un pays d'Afrique se tourne vers le pouvoir occulte des ancêtres pour se débarrasser de son dictateur. En le transformant en âne, exclu du monde des dieux, le tyran est précipité dans l'univers des bêtes. Aujourd'hui, on est face face à un tyran constitutionnel. Et malheureusement, malheureusement, nagu sarax kenn du ko jël ci sa gétt gétti jàmbur rekk nga koy jële ci biir assemblée fii dafa am ñoo xam ne ay nagu sarax lañ te man li ma ci naqari mooy tambour lañ leen di jëlee waaye ñoom seen biir gétt ñu ci jël benn nagu sarax gis nga nag li ñuy wax rek bu reppee ci xare luñ ko lu mu jiir rek da koy fekk te ndeysaan daa repp ci xare bi maa ngi gërëm leen sant bu baax sénégalais yi ñu leen def fii du ngeen fi voté loi bi merci monsieur Monsieur le Président, je rappelle, en question d'urgence, il n'y a pas de délai. Donc il n'y a pas de temps sur ça. Nous restons dans la légalité. Pour le reste, nous préférons, nous, l'élégance à l'arrogance, à l'insolence. Et nous prenons le peuple. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Président, on poursuit les travaux. Quels sont ceux qui sont pour son voilà mu ngoog euh, Ceddo mu ngi noonu mel ni euh, mm-hmm. kàddu mu débat bi. Mm-hmm. ñu ngi koy wéyal euh, ba léegi gis nañu taxawaay musaa Diakhaté moom bokk ci liberté et démocratie ak ki nga xam ne moo di rapporteur bi moom it mu bokk ci groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar mu mel ni député la bu ñu waxee rek. ñoom ñu mm-hmm. ñëw gàntal neenal seen ay wax. waaw Moussa Diakhaté de moom <laughs> yëf yi dafa maanaam on est c'est-à-dire c'est xam nga fi ñu jëm. ñoom xam nañu fi ñu jëm waaye nag xamuñu fi ñu jëmee réew mi. Mhm. te c'est très important je pense que loolu yëpp sax on va y arriver mais vraiment président Macky Sall lii mënoon na ko ci bañ a fekk gis nga euh, dafa am kilifa gu ñuy wax sëñ Cheikh Fall Mbawor dane loxo yi lay tàccu saa boo toogee ba ñu fabal lay xeer rek yaa fi bàyyi sa bopp mhm. président Macky Sall je pense que score bi mu am 2012 premier tour. ak pecc mi gis nga temps yoo xam nga ban fecc moo xew caxagun <laughs> sénégalais yi toj nañ dëkk bi te euh, aussi pour rappel historique ba tey mu baax gis nga entre 2011 et 2012 tout le mot d'ordre des activistes le mot d'ordre des gens de la société civile que je pourrais citer mooy sëriñ si seen yoon nekkul ci mbir mi na ngeen ci maandu les gens ont combattu le ndigal politiquement ba nga xam ne la majorité des sëriñ avait préféré laisser les Sénégalais faire leur propre choix aujourd'hui ces Sénégalais qui ont choisi Macky Sall ba noppi plébiscité ko ñoo bëgg mu jóge fi ñi nga xam ne ñoo doon xeex pour Macky Sall falu parce que dañ bëggoon laa jóge fi ñoo taxawaat ñoom aussi di xeex ñoom tamit war nañu jàkkaarloo ak sénégalais yi wax ak ñoom du kàddu dëgg xamal leen ne leen kat lii xew nii am na ci njuumte ak méttit ak i naqar yoo xam ne ñun ñoo leen ci dugal te ñooñu kenn déggu leen ñu ngi ci dëkk bi ne miix mais ce sont ces gens là qui ont combattu leen digal ba pare ce sont ces mêmes personnes là yiy suuxlu ci suuf naan na sëriñ si wax je le répète sëriñ si c'est des régulateurs sociaux mais à des limites mooy quand le politique a besoin de son frère politique c'est-à-dire dialogue national bii ñu initié très récemment avant ñuy def euh, parrainage tous étaient présents sauf les gens de PASTEF tous donc li xew ci processus électoral bi yépp ñoom ils sont comptables kon tey PDS sax warul woon wëlbatiku di wax di expliquer ils sont tous comptables donc ñoom bu ñu dajee bëgg waxtaan waxtaan woo xam ne waxtaanu politique la du ñu invité benn sëriñ tey jii lii Macky Sall def consulté wu ci benn sëriñ il a consulté le président du conseil constitutionnel il a consulté son premier ministre le le président de l'assemblée nationale. la euh, présidente euh, la présidente du HCCCT. le président du conseil le président du conseil économique et social. kon ñooñu mu consulter. lii mu décidé daf leen dugalaale dafa wane ne ñooñu dafa déggoog ñoom ci mm-hmm. kàddu dugal leen mm-hmm. donc nos institutions aussi sont complices de ce qui ce qui en train de se faire te loolu tamit war nañ ko wax mm-hmm. on a accusé des membres de du conseil constitutionnel de corruption conseil constitutionnel xëy na jomb naa wax ak sénégalais yi mais lan la ñu wax on a accusé le premier ministre du étant comme supposé corrupteur corrupteur depuis lors silence rajo ce premier ministre la bi nga xam ne dañu wax ne il a refusé de contresigner la décret parce que si le décret so bi bu fekkoon na am na validité kon day génn mais boo ko xooloon tey li tax génnul di nga xam ne il y a une irrégularité là-dessus kon irrégularité boobu tamit ñu dem répercuter ko assemblée nationale ñuy wax ne procédure d'urgence a tax député yu jotuñu li nga xam ne mooy projet Euh, pour pour kii bi. Euh, de vingt quatre heures avant. kon fi mu ne nii ah, maanaam taañaañal nañu dugg ci lu kenn xamul. Mhm. parce que y juste un pilotage à vue. Mhm. bu bëgg rek une dérogation spéciale. ñu ngi wax six mois ñoom ñiy wax six mois xam nañ ne le vingt cinq ce sera le jour du màggal ou le lendemain ou un jour avant. Mhm. te xam nañu ne màggalu Tuubaa kenn mënu ko randal donc. te xam nañu ne même bu dul woon màggal ci biir wax set la ci digg nawet la kon am na zone yoo xam ne ci biir nawet fii ci Sénégal sax pour cause de de de problème de voirie yi c'est des zones inaccessibles mhm. te ñu war nañu voter kon te qui peut plus peut le moins de bu six mois yi jàllee di ngeen gis musiba de mhm. dañuy dañuy def lu leen neex de sénégalais yi ñoo war a taxaw kenn ku nekk noo ko manee man day wax dëgg yàlla je suis contre la violence mais atmosphère ak climat bi ma gis tey ci réew mi parce que jóg naa génn sama kër ñëw ba fii dox bi ma dox ak xool bi ma xool mbedd mi ak xool bi ma xool sénégalais yi yëg naa ne kenn ku ne yëg nga ni am na lu mën a xew ci réew mi te loolu baaxul mooy bu magasin yi tëjee commerce yi tëj gaaru pe teer yi boo demee oto yi dañ daan gaare ba doo am foo dugal sa mais dafa vide te nit ñi ñaari at ak genn wàll ngi nii ñu ngi dund cette situation là c'est pénible kon président bi nga xam ne moom ci wàllu nit rek bu xoolee bi mu annoncé ne day bàyyi. nit ñi quand tu vas sur les réseaux sociaux les gens comptent ses jours. comme comme bëccëg yooyu nga xam dañ dañ daan ñëw di rëdd chaque jour nga gis ku ñëw publier président waxal loola neex mais dese na la nangami bis mhm. président waxal la neex mais dese na la nangami bis yaa ngi dégg loolu kon bu amee war nañu kenn ku nekk nga taxaw xool lan mooy li gën ci réew mi lan mooy indi jàmm ci réew mi lan mooy indi xéewal ci réew mi te loolu moo gën nit ñi le président ave dit lui-même réew mii di Sénégal moo sut sunuy jëmm kon na kilifa yi xool réew mi xool waa réew mi xam ne ñoom sénégalais yi moom d'abord li ñu njëkk a bëgg mm-hmm. mooy le 2 avril président Macky Sall jeexal mandam joxe lenge démocratiquement joxe lenge yi li topp ci li ñu bëgg it pour loolu mën a am mooy ñu organiser ay élection yoo xam ne dana tege ciw yoon ku gañe mu jébbal la lenge yi loolu la deseel sénégalais yi nit nag di nga am ay xam nga nguur boo ko yoree da ngay mujj da ngay yor ay noon yu nuru soppe mooy certains conseillers certains amis certains parents ñoom il profite plus du pouvoir que yow sa jëmmi bopp gis nga mag saal ba mu faloog léegi mën na am noos gi bu dee fukki cër moom amu ci sax benn waaye am na ci ñoo xam ne ils sont dans aucune structure cest à falu ñu leen joxuñu leen ay responsabilité ci nguur gi te liñ ci mën a am ak niñ ci mën a profiter ñooñu ñi ñu fal sax mënuñu ko ñooñu duñ bëgg mu jeex duñ bëgg mukk mu jeex te loolu boo leen toppee da ngay indi fitna da ngay indi jafe-jafe ci am réew da ngay mujj dangay ngay wéet ci li nga nekk te wax dëgg yàlla kuñ ne woon daa bëgg a rendi Karim Wade ba yàgg ñu ne daa bëgg a dugal Karim xam nga les choses sont tellement bizarres tey bu seen projet bi jàllee ñu déposer ko à la table du président le projet va aller au conseil constitutionnel waa conseil constitutionnel yooyu ñu wax ne yéen vous êtes corrompu entre guillemets. ñoom ñooy nar a affaire bi de six mois. maanaam posé waat encore au-delà de cette corruption supposée un acte anticonstitutionnel mooy ñoom ñu jëloon dogal ñu dindi seen dogal ñu ñëw indilaat leen këyit wuy dëggal ne dindi nañ seen dogal ñu si ñëwaat ko mu nekk mbir mi doy waar loolu na ci ku ne xalaat mën ni dañu bëgg delluwaat ci euh, pencum ndawi réew ma ndax euh, ba léegi euh, li nga xam ne moo di séance plénière bi ñu ngi koy woyal foofu ak député jigi kàddu ñu xaar ba tey ji ngeen ñoo fi moom dëkk bi ñëpp ko waaw fii ñoo fi moom dëkk bi ñëpp ko bokk Sénégal Sénégal yëpp la ak a wax dama am ci donc euh, mu mel nii ba léegi euh, lu ñeel wàllum internet bi euh, di ko fàttali rek jawriñ gi ñu dénk wàllum télécommunication moom moo ko coupé moo tax ñu ñu am ay jafe-jafe ngir mën leen a toppal li nga xam ne moo xem ca pencum ndawi réew waaye nag lépp lu mu àjju rek nañ ci def suñu kéem kattan ba ngeen ngeen mën a jote ci xibaar yi ceddo tey bu ñu xoolee mbir mi fi nga xam ne fa la yegsee ñu gis Abdou Latif Coulibaly nekk frère Cheikh mi nga xam ne moom la ñu tudd ni ci ñaari juge conseil constitutionnel euh, moom la ñu tudd ci wàllu ngeer moom mu génne démissionné démissionné ñu ne ñu foog ne fa lay yem tey ci suba mu def euh, ay révélation mu xam ne ni euh, ci RFI la ko waxee mu daal di xam ne ni lu jëm ci wàllu matériel électoral amul dara dara lu nga xam ne def nañ ko ci maanaam ñun dañu doon nekk di waajal élection ñun maanaam sénégalais ñoo nekkoon di waajal élection waaye du nguur gi moom nekk woon sax ci préparer élection ndax loolu ay xibaar yu nu mel loolu nekk na lu doy mu mel ni ñun li ñuy dund lu nga xam ne la ñoom maanaam benn film nu scénario ko ba pare teg ko rek di koy dawal. ngay xam ne am na lu muy bàyyi xel lu dul intérêt askan wi tey Abdou Latif Coulibaly bu démissionné ndax dafa gis ne askan wi li ñuy dund. dafa metti moo tax mu démissionné ndax dafa gis ne askan wi am nañu ay jafe-jafe mu taxaw dénoncé ko kenn faalewu ko moo tax mu démissionné déedéet Abdou Latif Coulibaly dañ ko tudd tudd freeram am tudd koo xam ne nee nañu moo supposé ànd ak moom dem kër frère am je pas di tudd ay turu ñoo xam ne xëy na defuñu ay réaction par rapport à sa donc moom quelque part passivement dugal nañu ko ci yëf yi donc bu taxawee démissionné ba pare wëlbatiku wax ne Sénégal amuñu benn effort bu ñu def ci organisation élection yi balaa mu doon neex mu wax ko bi ñu commencé parrainage bi balaa mu doon neex mu wax ko moment boo xam ne day alerte sénégalais yi ne leen il se passe des choses yoo xam ne man Abdou Latif Coulibaly en tant que sénégalais en tant en tant que citoyen en tant que membre du gouvernement. secrétaire général du gouvernement. en tant que secrétaire général du gouvernement